Ahmed Ndiaye. jërë ngeen jëf colonel Kébé jege na kaso l'observateur nañu moom colonel Abdourahim Kébé chargé de la défense ci parti réew mi li ñu koy tuumal mu di da doon woote ak fippu mbir yi ñu ngi koy bëgg a coûter ne dimanche ba léegi ma nga ñu tëye ci section recherche bu gendarmerie Colobane gendarme yi noppi nañu ci moom tey jii ci la ñu koy defeere ci tribunalum Dakar mu war a ji ak procureur de la république euh, colonel Kébé ak ëllëgam mi ngi da ko koy faxasal les colonel Abdourahim Kébé ba démb ci minuit 40 ñoo ngi ko doon enquête ak doon ko la ñu koy defeere su moytuwul instruction la jëm wala flagrant délit source a nañu moom colonel Abdourahim Kébé enquête ndax ci dimanche ji rek indil na fa sandarma yi ñaari ñol-ñol bi jëkk moo di biñ ko jàppee di ko laaj dana leen ne indil leen ma ab officier mu déglu man ndax man ab soldat laa bu gradé lool la l'armée bi ma bokk ba doon ci colonel mayu ma may wax ak ku nekk gaañ a nekk ca loolee di ko lijjanti ak moom ba mu yàgg mu génnee article 5 bu UEMOA bi teg ci taabal ji taxaw ne sandarma yi yi du ma sama avocat ñëwul source a nañu ci enquête ba it tegal nañu ko fa ab audio boo xam ne ñoo ngi ci dégg kuy woo askan wi ngir ñu jóg révolté wu ba ñu ko ko tegalee colonel Kébé daf na leen xaw ma fu lii jóge xaw ma ki ciy wax kan la ab avocat moom colonel Kébé di maître Ndeye Fatou Ndiaye ni ñu ci Vox Populi dara taxul ñu bëgg a sonal colonel bi lu dul fi mu bokk ci wàllu politique journal Les Échos xëy ñu xamal ne juróom-ñeenti nit yi ñu jàppoon te ñu bokk ci parti réew mi tey di atte enquête dina kay nañu réew mi au cœur li journal bi di waxtaane moo di teg loxo gi ñuy teg loxo ñi fara ci opposition nañu ko waral dara waralu lu dul gaañ ñi dañoo tiit aluntin nañu bu ñu bañee yokk joote ji nañu libéré colonel bi laatir bi nañu bu ñu bañee joote am ci réew mi bay yokk mi ngi aju ci Macky Sall faw dafay teggi tànkam dellu gannaaw ci li mu nekkee ak résultat yi commission nationale recensement des votes joxe Macky Sall gagné na élection yi ak cinquante huit virgule vingt sept pour cent ñi mu ko loon taxaw nañu wax ñëpp dégg leen ñu ne duñu masa nangu résultat yi waaye li ko ko war moom Macky Sall moo di ubbeeku tàllal loxom opposition bi ngir ñu toog waxtaan waxtaan ngir jàmm ci politique bi waxtaan it ngir jàmmi réew mi réew mi quotidien mel ne ku naan ko tàyyi ko li journal bi bind ci mu njëkk moo di Macky di soppeeku wàllum traak mbirum auditionné ak di fitnal opposant yi Macky Sall ci loolee la nekk ba tey tey li ñëpp yi laaj ci moom la Sud Quotidien xëyee ubbil yéenekaay bi waa Benno Bokk Yaakaar ndax seen bennoo gi ñuy woote danañu ko mën a saxal ba gunge Macky Sall ba mu jeexal mandam bi docteur Maurice Soudieck Dione ni ñu ci yéenekaay bi gëmuma ko Benno Bokk Yaakaar foo jaar dafay tas ne bu ñu demoon tey ji ba yegg ci élection présidentielle yu 2024 yi xel xalaatul ñuy juboo ci candidature unique ñaar ci ay àndandoom moom Macky Sall mu di waa parti socialiste ak waa AFP seenu la le journal su waa xëy di waxtaanee ci xëtamu njëkk yéen bi nañu ba ñu cay waxtaan ba laaj ci Abdoulaye Wilane lu mu ci xam daanaka Abdoulaye Wilane du rek la leen deful lu defu di waxul lu ay di njàmbat Karim Wade ay gën di gàll góose Vox Populi la mu demoon doon kalaame ji ca CEDEAO mu di ñu bàyyi ko mu bindu ci liste électorale yi cour bu CEDEAO débouté na ko léegi nag moom Karim moo ki avocaam ca organisation des nations unies mu di ONU fa la ñu jëm journal Le Quotidien dëggal xibaar bi ba tegal ñu ci sax ne élection yi taxoon Karim Wade doon rey boppam ci am carte électeur élection yi weesu na waaye li ko tax di sonn jamono ji moom Karim Wade moo di bëgg a wan askanu Sénégal ne dañu koo tooñ loole nag amewu ko ca CEDEAO fa mu jëm léegi moo di ca comité des droits de l'homme bu organisation des nations unies fa la ko Dieynaba Balde mi ngi jooy doomam ci l'observateur mooy yaayu Ahmadou Seydi di xaleb ñetti at bi ñu fekkoon ñu faat ko sol ko ci saako sànni ko ca filao yi ba nee na li mu yëg jamono ji ak di ko dund ñaanalu ko benn yaay mënul gëm ba léegi ne doomam dem na bu ñu dem fenn nañu des ci l'observateur mbuur toj na polisu mbuur toj na rajax yëral xët mu njëkko yéenekaay bi ñeenti téléphone portable la ñu sàcc ci biir police bu mbuur yéenekaay bi nañu li ci gën a yéeme nag moo di téléphone portable yooyee benn